wajalilaayi maskani tuubaabaat misras mi abijaayi xayri manabaat wajalilaayi maskani tuubaabaat misras mi abijaayi xayri manabaat wasalliyan alayhi abdal salaat waalihi wa sahbihi sawi silaat wa kullu man qaddamani aw saara ونجني وخذله أوسارا kon nag ay ca murit ay ca murit ay ca murit wajalilaayi maskani tubabat misras mi abijaayi xayri manabat wajalilaayi maskani tubabat misras mi abijaayi xayri manabat wasalliyan alayhi abdana salaat waali wa sahbihi sawi silaat وكل من قدمني أوسارا فنجني وخله أوسارا وكل من آبني أو مالا إلا يفعس خدا أو مالا وكل من ستمني أو لاما فأبلغ توبة واستسلاما وكل من أساس النوبيا فليقل قلبه يا رب sunu taxawaay yii nag ak mbooloo mii nu àndal nag dara wëralu ko lu dul fas yéene indiwaat beneen xarkanu kanam boo xam ne képp ku dugg ci dëkk bi jóge ndakaaru mbaa foo mën a jóge da nga xam ne dëkk bi am na beneen xar kanam bu bees ci ay garab tuubaa ci kanam mu am yéene yi jëmbat ay garab ci dëwaay yi nga xam ne moo jóge mbakke ba àgg booy dugg tuubaa loolu nag moom la ñu fas yéene amal amal googu nag ku ne xam na ne dana am ay wàccaay wàccaay yooyu nag moo waral bis bii tey muy ànd ak croix ak ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon muy ville vert bi nga xam ne ñoo fi nekkoon di góorgóorlu ngir jëmbat loolu Touba Touba ci kanam ñëw ànd ak ñooñu ngir ñu aménagé ko bu baax maasale ko panneau yi nga xam ne ñi ngi ci biir te bokkuñu ci ñu jëlee leen fi fas yéene nag aménagé ko barrière ko barrière yu mucc ayib ñi nga xam ne dañoo yor ak jur mbaa ñu yor ñi nga xam ne dañoo nitoo diku te di gis lu ñu def ci dëkk bi bu ñu ñëwee fekk ñu dindi ko loolu wax nañoo préfet ak sous préfet ngir ñu def ci ab arrêté boo xam ne dañuy leeral nit ñi ngir képp koo xam ne yor nga jur muy aw bëy mbaa am xar mbaa aw nag mbaa lépp loo xam ne lii ñu bëgg a def da koy gàllankoor ñu alerter la dénk la ngir nga téye sa jur wajalilaayi maskanitu baabaat misras mi abijaayi xayri ma nabaat